NJ Production remercie ses partenaires. Bafou Collection, partenaire numéro 1 du groupe NJ Family. La ville de Thiès, complexe Barrière et Couture. Au Bichri, Djarabi Couture. Dabar Construction, votre maison de A à Z. La maison de NJ, la de Shop, Groupe Future Compagnie. Kia Evans, structure événementielle. Hôtel J'aime le Sénégal depuis ce monde. Agence Planète Vision. Agence de mannequinat NG Mode Fashion. it, itchy music. Lady, the forgot Oh, na, na, na, na. The forgot model, Lucy. Lady, the forgot model, Lucy. Oh, na, na, na. The forgot model, Lucy. So come back, come back. Lady, the forgot model. The goodbye, limo, mum. The come back, The come back. Olha pra ela voyage.

man lépp lu ma lay conseillé mooy jiitalal ngëm-ngëm daal nga gëm xam ni suñu borom la mooy maye mooy xañ te moo la xañ am doom ah, dëgg la tamit la doom yàlla ak mais yàlla moo koy joxe moo xañ mais tamit dafa bokk ci sëy bonheur la xam nga tamit sama jëkkër dafay lool dafa ma jaral lu mais puisque a ngi xalaat ci loo xale la ta plus le sens yow loo xalaat a def. dama bëgg adapté. c'est bien c'est bien mais pour moi y a une autre solution bi nga xam ne gën parce que c'est jii adopté on jour viendra bon moi j'espère que ni xale boobu dina trouver des ay parents. Hein wala mu chercher ay parents dañ comprendre mais man d'après ce que je vais conseiller moi, adopter c'est bien c'est pas mal mais man pour que ngeen am un propre enfant comme jilo ni et ko il xale la amuna am et la solution moi, je ne trouve pas que ne dem adopter un enfant moi, moi, que mu am takkandeer loolu loolu que mu accompagner les rek mais du takkandeer dañ

je pense bien que les Bolène fait insémination artificielle avec euh, une très bonne mère protéine, ça va vous apporter quelque chose. Là, vous aurez votre propre enfant. loolu on a muy laaj mooy confiance sérénité une mu épaulé la te xale yu góor le voir. duñ ko nangu. waaw ah, loolu parce qu'il m'a toujours soutenu. vous allez vous sacrifier entre vous deux vous allez vous concerter, en Paul. Parce que je sais très bien que tu ne vas pas laisser tes voyages pendant 9 mois ou bien 1 an à rester à la maison, s'occuper d'une dame qui est, bon, enceinte. Donc, tu vas penser que c'est ton enfant et que tu ne peux pas le faire. Donc, moi, je vois que les mots disent moins. Donc, il y a une entre vous, Gilo ndax mën na euh, concentré wu ci mère porteuse bi si il l'accepte je vois pas que il ne va pas l'accepter parce que ngeen bokk benn doom doon te ni que ni yow ëmboo ko mais sa doom lay doon sa doom ak doomam lay doon incomprendre mère porteuse bi mooy ngeen ut ko concentré wu ci moom kenn ci yéen arrêté travail moi je parle directement à Gilo moom arrêté liggéeyam pendant un an ou bien neuf mois concentré wu ci seen bébé parce que tant que amul trois mois wala benn chaque mois du dégât donc mes porteuse bi moomul ay tout passer par là comme que ëmb nu muy def nous mel ni nga teg benn verre tu vas le protéger que ni ba mu bañ a daanu le loolu moo parfois voilà parfois moo tax parfois nit ñi bari duñ ko nangu parce que tu vas faire sacrifier wu lépp ben deux mois trois mois ñu ne yàqu nga donc vous allez vous sacrifier une des loolu et ça va demander quelque chose bi nga xam ne sincérité

islamotongi-koa, kavmilik espresi unutucu não Anladın mı? Sadece espresi olmadım son olarak. Bunu severek adını son advayaz bir way. La mum não Ne gel kaspi não kilsedme. Merci. Çin çin. Mais não à part ça, il não, a un repos Ça va, rien de especial. ay reposé wu tuuti quand même. ah maa dans dalu ne avec toute pression. mais est-ce que xam nga soo sonnee da ngay gën nice mon cœur. je te jure a une nice non hein? ah. tu sais depuis que bi nga jógee voyage ba léegi dama gis que carrément da nga stressé wu sa wax tout. bon je ne sais pas pourquoi lu xew. c'est du juste des détails rek. tu sais bébé je te connais très bien. ça c'est sûr. xam naa ne y a quelque chose dedans s'il te plaît expliquer ma ma xam. lu ñu bàyyi noonu rek la expliquer. ko pour man instant bi si dund ba mu temps nag pour man nii nga ko mën a waxtaan nga ma ko mën a waxee quoi parce que tu sais kër gi kenn new fii maa ñoo fi nekk pour man tey jii yoon la ñuy waxtaan si man ak yow quoi. dëgg la moom damaa ah, yow am benn bopp yaay sama lépp yaay sama xarit yaay sama lépp. mais juste que ne dama xaw a am lu may inquiété wu tuuti rek. inquiété wu. tu que ne sama voyage bi demoon naa pour samay affaire mais quand même naa tamit pour pour saytuwaale sama sama sama yaram sama wér-gu-yaram. Mm-hmm. ndax tu vois que ne ba ñu xëy ba ñu sëy ba léegi fexe ba am doom. Mm-hmm. te ba ma demee foofu d' médecin yi maa ji ndax man mënatuñu am doom. tu sais bien que on a beau essayer c'est quatre fois sax A dem def à chaque fois nous tentons rek nous jógee avortement day ñëw c'est ça qui nous dérange le plus Restons bien mooy loolu loo xam je te dis une chose bébé Si gis nga il y a ko yor t'inquiète pour ça parce que bëri na ñuy un doom après bon. soit que mu perte yaay ou bien mu perte papa ñu ñoom ñaar ñëpp dem gis na doom heure jotee suñu borom koy def bul teel perte espoir c'est vrai que tenté nañ ay yoon essayé nañ ay yoon muy essayé mais yàlla baax na ko jiyee kam pour ragal dara mais je pense que yow joxoon ma aw ma bonheur ci suñu sëy franchement maa koy dund parce que yaa lépp li ma bëgg yaa ngi koy defal.

mënuma matale lekk dëgg la mais bëgg naa vraiment am benn doom xale bi de yow laa oh sama xol yaa ma doy xale bi de

Voilà. Comment vous allez Ça va Madame Si, ça va Ça va bien. Yank Ça va, Jésus Ouais, ça va. Ça fait un bail là. Ouais, ça fait un bail. Monsieur on a la. Nam mo da ça. parce que madame moi, moo fi chaque jour. Ouais, c'est vrai. Ah, ça va Prenez place. Merci. Euh, à part ça, quelles sont les nouvelles oui, ben fi euh, comme nous donnons doon téléphone pour faire affaire insémination artificielle comme quoi que nous ñu portage mère

te loolu nag jéem nañ si vraiment kéem suñu kàttan parce que d'après defal nañ ko stéro defal nañ ko échographie defal nañ ko bilan mais vraiment loolu mooy loolu mooy li ci nekk ci ci son état de santé ba tax na pour mu am doom newuñu du am mais dana jafe lool lool lool lool lool lu jafe lay doon jafe lay doon vraiment nous sommes désolés pour pour wax ko ko carrément mais lu jafe lay doon jafe lay doon si kaaw monsieur si aussi euh, mon bi ñu bilan bi mom tamit spermogramme bi normal na donc mën nañ wax ni euh, ci côté monsieur si mom ça va war na am dom donc euh, légui nak li ngeen xamni mom ngeen wax muy insémination artificielle bu ngeen bëgg ñu def ko dafa am ay préalable manam ay conditions yo xamni il faut mu réunir ñu sokku mën def d'abord am na ay kayit yoo xam ni si wàllu wér-gu-yaram fii ci suñu réew maanaam danga koy da nga koy signe ak parti bi nga xam ne moom mooy mère porteuse ak yéen seen parti ak parti bi jëm ci ministère de la santé ak institution sanitaire yi nga xam ni ñoom ñooy saytu loolu beneen bi nag moom mooy tamit mère porteuse bi il faut moom tamit ñu defal ko bilan defal ko ay échographie seet ba xam moom tamit Euh, elle est dans les dispositions pour mon am dom té mu nek tamit ko xamni ni na def ay preuve am maanaam na am dom donc lolu moy condition yu njëkk yi nga xamni fo il euh euh d'accord ci pour ñu mëne ko tambali li may wax rek ñun fi dans notre structure sanitaire fi am nañ fi base de données bo xamni ay mère porteuses yo xamni dañ fi dañ fi dañ ñu ci suñu base de données yo xamni ni nañ ci xol yéen aussi de votre côté mënoon ngeen indi seen mère porteuse maanaam ci morphologiquement nan la war mel aussi ak koo xam ne seen am ngeen ci man confiance am déet aussi ba xam kii euh, la daal ku apte la pour pour loolu su fekkee ni nag dafa am ñaar ñu xoolal leen ci suñu base de données wala yéen aussi ngeen indi kenn loolu lan ngeen ci xalaat. non docteur man de xool seen base de données yooyu moo gën ko am. waaw ah, moo gën kay parce que yéen a si gën a xam mais nak euh, a na cher trop bilan euh, procédé cher vraiment. docteur cher ay problème ci pour fay ma sant ko def lu di rek d'accord d'accord kon kon kon une documentation.

de même que nous réussir nous na aussi réussir kon ñu nous xel ci ne war na réussir comme aussi mun na réussir baye ci xel aussi. yalla baax yalla baax non yow yow yow yow yow yow sama xarit nga aussi sama xarit parce que ça fait très longtemps que man man ngeen confiance jox ma gérer tout ce qui est santé dans votre famille loolu moom incha allah dinaa si def kem sama kàttan ba yàlla may ñu ci ndam et je vous souhaite un très bon courage euh, couple lii la maanaam euh, dialogue la waxtaan la dans des situations pareilles parce que cas bi ngeen nekk nii dites-vous que il y a des milliers de personnes yu ci nekk te ñu ngi koy dund mais yéen avantage bi ngeen am moom mooy am ngeen moyen wu fay loolu wala ngeen ngeen faju mais am na couple yoo xam ni sont dans le silence té amuñu luñu sax defee bilan bay am lu ñu insémination artificielle wala bay fay mère porteuse donc loolu santé leen ko yalla euh aussi may rafetlu aussi confiance bi ngeen may jox toujours à chaque fois ma nekk médecin de famille nekk seen conseiller en santé lepp lu len jaaxal ngeen ñëw ci man vraiment loolu aussi dina ci xar sama tànk tubéy ba lepp lu ci def rek yalla may ñu ci dal mais nak à retenir toujours que ni dañuy essayer rek na jàll mën na bañ a réussir su réussirul tamit on a le temps de réessayer encore quelquefois ba yàlla dañu may lu ci xel merci beaucoup merci beaucoup hein. hein? faire un tour il a pas de merci beaucoup de courage hein? merci allez merci beaucoup au revoir. ok au revoir merci merci. neexul te yaa ma doy xale bi de yow laa nopp bu dul yow du doon keneen oh ah. man bëgguma ngay fii non bëgguma ngay mer girl yaay sama yaay dompi toi et moi c'est pour la vie.

xam nga am pas beaucoup de temps je te fais confiance tu vas prendre soin d'elle te di nga gérer. nga ma dem am lu ma lijjanti ñëwaat. def sama waay. maa ngi dee nelawatuma guddi xale bi dugg sama xol bi di ko mëlëj mëlëjee fii yaa ne wax ma nu may def si gaawul cuuti man damay mujje gaañu tisbaaru mbëggeel takkusaanu nobel xëy fajar di bëggante yor yor ngay nobante bët lu ko fàtt du ko gis xol du om ba ñu koy bës lagal waa we got a little NJ Production remercie ses partenaires. Bafou Collection, partenaire numéro 1 du groupe NJ Family. La ville de Thiès, complexe Barrière Couture. Au Bichri, Djarabi Couture. Dabar Construction, votre maison de A à Z. La maison de NJ, la Labado Shop, Groupe Future Compagnie. Kia et structure événementielle. Hôtel J'aime le Sénégal depuis ce monde. Agence Planète Vision. Agence de mannequinat NG Mode Fashion.